asalaamaaleykum mbokku internet yi topp seen site bii di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax dañuy doxantu ba fale ca diwaanu Kaolack fekk fa njombe li nga xam ne moom moo fa daal di xew benn ndaw bu wuyoo ci turu Fatou saar ay atam toll ci di ans moom lañ fa daal di sàcc ginnaaw ba ñu ko sàccee nag ci lañu ko violé ba pare daal di koy rey bu ñu ko defee loolu ba pare nag daal di koy sànni ci àll bi jamono yi ñuy àddoo ngeen di teewlu nag néewu ki nga xam ne moo di Fatou Sarr moomu mu ngi fii ci diwaan diwaanu ndakaaru ngir ñu def li nga xam ne moo di autopsie bi boo xam ñan ñoo def mbir mu ñaaw moomu ginnaaw ñun waa wasaare nag information boobu ñu ngi leen koy toppal ba xam fan la wanent di mujjee ki gëtam jërë ngeen jëf ci topp bi ngeen ñuy topp ak taamu bi ngeen ñuy taamu ba beneen yoon incha allah ak yeneen i information jërë ngeen jëf